yàlla joxe cër sa askan jox la cër nga nekk fa ñuy dogale booy wax dara fekk mu am dégg naa fi député honorable député yu wax ngor jom dëgg moom lañ ñu mooñaale moom lañ ñu yare moom lañ digle ci réew mi moom lañ jàpp ni ko ku baax moom ngay def moo tax boo taxawee fii di wax sa beneen moroomu nawle am na rapport bu la épinglé ca amul ko xaar ci yow fii nga toll tey ci politique lépp looy wax man damay politique comme yow bu ma jógee fii nii après damay politique damay bu ma génnee loolu rek laay def li may gën a moytu mooy wax lu ma amul firnde lu ma mës wax nit buñ ko weddee ma génné firnde bi ci sama poste parce que waxal nit lo xamné amul tuuma la tuddu te tuuma baaxul rapport musuma épinglé man wax nga ko député wax ko benen député wax ko fi luma fi wax c'est comme si dama nekk ci serment luma fi wax man ngeen ko vérifier yow député nga Ibrahima Diop député la euh, Bara Gaye député la ñun ñëpp ñoo bokk génération man bu ma la jiiñee dara buñu génné ma jox la firnde bi man bu ma la jiiñee dara buñu génné ma jox la firnde bi musul am rapport bu épinglé Mame Mbaye ci 29 milliards dañuy politique nak wax lo ngeen ko ay journalistes ñu condamné leen wax loo ko ay télé ñu condamné leen parce que boobu ba léegi yéen a ngi wax musuñu indi rapport man lu ma yëkkati teg ko ci nit boo ma laajee ma jox la firnde bi en privé en public au tribunal Baragay, honorable député un ami un frère ñoo bokk génération le 16 juin 2017 ci une émission man du le wax mukk di dellu je musuma ko wax ci jamono jooju ci jamono jooju ci jamono télé ni 18 points la limay wax nañ ko dégg bu ak dañuy ut troisième mandat ma ni maa ngi giñ ci alxuraan ni président Macky bi ma xam te ñu ànd bu dee daganal góor jigéen man duma ko ci jàppale boo gisee leneen comme que yàkkamti ngeen ku wax man du ma wax di dellu gannaaw et du ma wax di jàdd et lu ma wax jalal na ma sama bakkan parce même bu fekkee mag ñi dañuy dem man ak yow ak ñeneen ñi dinañ dund dix ans vingt ans man duma ma ànd ak nit ci goree di du ma ànd ak nit ci lu ma gëmul ci lu le fais pas opposition bi bari na bari naa ci ay xarit séq naa ku nekk mais du ma wax di def nii ci li ma gëm laay wax donte dama ciy bàyyi sama bakkan léegi nag problème troisième <laughs> mandat ak loolu loolu vole politique la bu ñu génnee ñu politique ndax dinañ ci yaafus walla duñ ci yaafus jaru ko mais réew mi moo ñu ñor réew mi mu am solo wax ci mbooloo ak wax ci kanamu askan dafay lalu ci dëgg ay tuuma rek réglewul dara nañ leen werante ci xalaat yi nañ leen werante ci gis-gis yi nañ leen werante ci dëgg parce que tiim sa moroomu nit naan yaa sàcc lii yaa sàcc lii yaa sàcc lii te loolu dara amu ci wax dëgg yàlla loolu jëmalewul réew mi kanam ay mag bu nekk war na ko mën a rus a def waaw